asalaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum partout dans le monde di leen bëggee di leen safoo di ñaan toujours encore une fois jàmm ci réew mi encore une fois mbas mi jóge fi ci réew mi encore une fois chauffeur yi. ñuy dawal ndànk di dal ndànk encore une fois les chauffeurs maliens la yi nga xam ni vraiment dañuy drogué wu rek nekk ci tali bi di def lu leen neex ma leen ma ci teg sama bët xamoon naa dinañ ci mës a am ji bés nañu jéem a xool nu ñu régler situation bi moo gën ñëlee di rayante fee ñëlee di rayante fii parce que li amoon Mauritanie ak Sénégal naar yi ak olof yi waratul mën a am ci Euh, maliens yi ak sénégalais yi ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp benn lañu erreur la erreur la nañu delloowaat suñu xel xam ni ñee seen doom a ngi fii fii tamit suñuy doom ñu ngi fële. tu vois ñu gën ko rafetal chef de l'état nga teel ci dugal sa loxo pas ay ministre des transports Mansour Faye wax na kenn déglu ko Macky Sall nga wax wax ak président malien bi ngeen wax tu vois parce que ay bakkan ñooy rot. ay bakken ñooy dem ay bakken ñooy wadd des responsable ay ñoo xam ni dañu bàyyi doom bàyyi jëkkër bàyyi yaay bàyyi papa bàyyi jabar ñu sacrifier leen noonu ci deux temps trois mouvements loolu du yoon neexul kenn neexul kilifa diine yi neexul kilifa aada yi alors bu loolu weesoo ñuy jaale communauté laayeen yëpp suñu xarit suñu sëriñ suñu wàlliw suñu nitu yàlla bu sell bu tëdd bu teey bu bu bu bu bu bu set wecc boobu nga xam ni mooy Cheikh Ablaye Thiaw laay laay Maxtaar laay Alassane yàlla na la sa bàyyi teeru ci àjjana firdawsi yi yàlla na la yàlla beral loxo ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na la yàlla dolli leer ñun ñëpp taas sa barke bu ñu jógee foofu dem ci vraiment comité canaba euh, canaba yi Cheikh ñas ñu koy ñaanal moom tamit euh, Seck Serigne sekk yàlla yokk leeram taas ci barkeem jóge fa tamit tey amaat na beneen tiis inna lillahi wa illahi rajiun sëñ Abbas Sall doomam jooju di Mansour Sall yàlla xare ko aljana yokku leeram nga xam ni kilifa la doon dox rek ci diine ci alxuraan rek la doon dox sëriñ sàll boobu yàlla nañ ko yàlla fayal alors bu ñu jógee foofu nii daal laa def ci laay istilis xale bu graw boobu nga xam ni moo nekk fële ca unité 26 parcelle dinaa ñëw léegi joxe numéro am parce que yu rafet yi lay lay ñëw mi ngi expo di def ay exposition sur le plan international laay isilis complexe laay ñu ngi lay ñaanal une très bonne continuation yàlla sàmm la wéral loxo bi alors bu ñu jógee foofu mooy wax ni gars yi namoon naa leen maa leen raw le retour de Don Diego le milliardaire saoudien noir alors ñu félicité suma doom suma xarit suma rak faramaaren boobu jantal booy euh, Wally Ballago Seck avec le groupe Ramdan toj nañu vraiment Côte d'Ivoire jot naa ambassadeur Sénégal Côte d'Ivoire bi nekk foofu vraiment gars yi yëpp nee nañ ma jéego sa booy lakk na dëkk bi taal na daay yi débordé na dëkk bi loolu yàlla mayu yàlla la ñu lay ñaanal yàlla gën la protéger gën la aar gën la may gudd fan ak wér gi yaram ak sa soxna su baax soosu soxna ay dara sama xarit sama chéri nga xam ne fu ma gis jëkkër la may wax kenn déggu ko ci dara ñu ngi leen di ñaanal vraiment demal rek sa baay ñaanal na la am na lu mu fi bàyyi continuer rek te ngay jege sa yaay soxna Kiné Waly day jege sa yaay rek jegeel sa yaay rek jegeel sa yaay gënaat xoolaat sa entourage parce que xar day weesu mbote di nga dépassé foo xam ni nañu nekk sa gaañ ok mais da ngay jéem a ut ay haut niveau yoo xam ni dañ lay gën a yëkkati parce que suñu borom yëkkati na la donc il faut am ñuy nekk ci suuf di la tooj di la tingoom ñu dem xool yi Waly Ballago Seck ñëwaat rapidement moo dugg ci dédicace yi yëngal safal safal safal et eh, Eliane doomu mbuur boobu laa ko may ah jëlal Wally Balago Seck go ci Elia Africano. gis naa borom aan ii naga woo lay lay lay lay guy dakar ka cay du maare soo woo xaas du ma la ma naa dee Thank

capitaine la capitaine la moo jaara dañ koy yëngal ba si yàgg sa mu yóbbu leen faneen foo xam ni doo leen ko fooge te maa ngi ñëw léegi ci foofu parce que musique la boo xam ni foofu gars yi dañ ko fatte woon te waruñu ko fatte te deuxième âge troisième âge ba ci génération bi war nañ ko mën di déglu muy musique boobu ñu naan salsa maa ngi ñëw léegi mooy sama deuxième morceau bu may teg di ko teg moo waa ñu naan alfa Diallo te Alpha Diallo li ma gën a li gën li ma gën a impressionné ci alfa Diallo dafay lakk presque cinq lakk dina làkk portugais espagnol français italien allemand ba pare di lakk ñaari séeréer yépp yi ñuy lakk ñi naan añaaja ak ah, jekonjal day lakk séeréer bi comme séeréeru ñoom korom ak fay bi day làkk beneen séeréer bi comme séeréeru ñoom président Jean Marcel Diagne séeréeru ñoom ñoominke yi ñoom gilaas ak ñoomin Diofior ak ñooñu séeréeru ndox mi ñoom Yékini ñooñu baasum wala Alpha Diallo day lakk lakk yooyu yépp ba pare di lakk pël Fuuta di lakk malien ñu ngi ñëw léegi ci moom Alpha bu ñu jógee foofu ci musique morceau bi ñu koy may euh, suñu xarit euh, Moussa mo mo waaw mu Anta Diop vraiment waaw ah, ñu ngi ko koy may chéri Banel Banel suñu jabar jooj nga xam ne fulla ak fayda rek lay séyee ma euh, dama koy xoolee rek fa vraiment ñu ngi koy ñaanal une très bonne continuation ah papay Khadija ak Mohamed ak ak ak ak mahanta mahanta vraiment mahanta ak bébé Mohamed ñu ngi lay ñaanal tamit nga dund ba fekk sa njëriñu bàyyi ñuy ñaanal tamit la futur maire sangal kam ah ma penda fay ma penda fay taaliba Serigne Touba boobu nga xam ni vraiment doxul ludul dul ci social ma penda taaliba Serigne Touba boobu nga xam ni dafa bëgg soxliwaat Sangalkam jeunesse bi ñoo moo ko tax a jóg mu nekk xale mu nekk nit ku extraordinaire futur maire de kam dara ñoo na ko lu dul waa jeunesse bi vraiment mu ñëw pour changement takku liggéey dugg ci politique bi ndax xale yi ndax jeunesse bi ndax gox bi la mu fa gis neexu ko mu am nag entourage am ay accompagnement yu dëggal seen bopp gëm seen communauté commune de kam boobu ñu dëkk gëm ci village bi gëm tamit nit parce que nit balaa nga koy fonk da ngay respecter nit je pense que ma Mapenda fay foofu la toll ma Mapenda Faye ñu ngi lay ñaanal vraiment taalibi Serigne Touba boobu nga xam ni futur maire sangal kam ñu ngi lay ñaanal une très très très bonne continuation message yëpp fekk si nañu li la tax a jóg yëpp xam nañ ko ak li ngay liggéey yépp ci si ginnaaw politique bi xam nañ ko big up à vous ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di si nuyu pati su ma jantal boy boobu dañ di gendarme mu nekk ci camp Leclerc di nuyu tamit Diop ah di nuyu euh, euh, waa kër sàmba yépp di leen nuyu di leen bëggee di wax tamit Tisli Group international Tisli Group ñu ngi koy nuyu bu baax a baax le PDG Tidiane Thiam ñu ngi lay bëggee fële ca Dubaï gis nañu liggéey bu extraordinaire boobu ngay def di nuyu tamit monsieur le maire góor gi góor gi góor gi góor gi siis mooy euh, maire yeen bi maire yeen bi tamit jot nañu ay message yu bëri bëri bëri bëri yoo xam ne vraiment commune bi ñoo la ko ñoo la ko ñoo la ko envoyé ñu lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa équipe boobu nga xam ne ñoom nga ci àndal di liggéey vraiment sur le plan économique ak sur le plan social vraiment abattre le travail pour le développement de la commune de Yène gis nañu ni ñu ciy taxawee vraiment góor gi siis ñu ngi lay ñaanal di ñaanal sa équipe bi nga àndal tamit di honorable député Adama Kadam Adama Kadam big up à vous à vous gis nañu tamit taxawaay bi ak ak ak ak ak vraiment ak ak ak euh, ni ñu koy waxatee comme boo sawaree rek quoi ni nga sawaree quoi gis nañu ni nga sawaree ci liggéey bi Adama Kadam ba ñu ngi koy béggee di béggee deuxième adjoint maire tamit vraiment monsieur Ibrahima Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye gis nañ tamit sa jom ak sa fulla ak sa gaynde Ibrahima Ndiaye jërëjëf ñu ngi lay ñaanal tamit une très bonne continuation di ñaanal suñu papa suñu doyen ah moom mooy premier adjoint maire Mamadou Dieng kooku nag Mamadou Dieng boobu dañ koy taxawaayam gën a dëgër taxawaayam gën a yàgg parce que village yi bëgg nañ ko les dix villages yëpp notables yi fi ñu nekk yëpp ci yéen dañ koy gën a euh, ñaanal di ko jàppale surtout tamit la jeunesse muy mool yi muy vraiment xale yi ci tool yi ñoom ñëpp daal ñu ngi ñaanal monsieur euh, suñu papa jooju Mamadou Dieng taxawaayam gën fi yàgg vraiment muy accompagner monsieur le maire Gorgui di nuyu tamit euh, suñu jigéen yooyu nga xam ni vraiment elles sont très braves ñu ngi ci liggéey bi boobu ba léegi vraiment dynamique nag waaw vraiment di servir commune bi ñu leen di ñaanal yàlla lay leeral seen yoon bi ñu bi ñu teg seen tànk vraiment ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di nuy encore une fois tamit monsieur Gorgui di PSA fële di professeur bu mag boobu nga xam ni vraiment ñu ngi koy wax une très très très très très longue vie dundal parce que askan bi soxna lañ la surtout jigéen ñi jigéen ñi moom ñu ngi lay ñaanal bu baax les femmes de yéen la bravo à vous et les jeunes dynamiques ah au service de communauté sous l'éclairage du professeur Gorgui Ciss voilà PCA de la ah ah Safri ah sa société déménage déménagement foncier et rénovation urbaine <laughs> gis ngeen liiru milliardaire rénovation urbaine xam <laughs> naa nante ñu ngi naan mënul liir mais da koy saale noonu masqué ko dama tàyyi ñu dem xooli Alpha Diallo sal sa laa leen indi laat les salsaros et Hamidou Hamidou Bari Hamidou Bari suma taximan boobu di ko may Didier Diallo di ko may tous les Pël-Fuuta du Sénégal yu jógee Guinée Conakry Guinée Bissau Guinée équatoriale nekk fii Sénégal ambassade Guinée maa ngi leen di may morceau alfa Diallo bi allez ñu dem xooli ko Alpha Diallo Hamidou Bari Hamidou Bari jëlal yaa ko sama taximan mag boobu <laughs> let's yesaay mi ngi noonu caas caas <laughs> caas gis nga ni ma leen ni ma leen gënee muus dama leen doon nax ma ne leen maa leen tegal Alpha Diallo salsaros Alpha Diallo lépp lay way day mbalax day reggae day jazz day soul music soul music da koy def day reggae dëpp reggae dënk day rap parce que ku dégg cinq langues Alpha Diallo yàlla na sa jàmm yàgg bientôt di ngeen nga gis sama plateau xam naa semaine prochaine dinaa ko indi parce que moom dafay dundal musique moom dafa xam musique moom day yeete ci musique merci à toi éviter limiter le mandat da nga wax lu graaw ah message boobu nga transféré tous les chefs d'État voilà du du de l'Afrique et du monde très bien alors di ko bëggee moom Alpha jàll di ko may sama taximan bu mag boobu Amidou bari ndeysaan xale bu yaru gëm boppam très correct Kodam ak Faye jërëjëf yàlla nga fi yàgg te wér fay wax na ci faux marabu yi mooy escroquer yi les les faux marabouts yi escroquer nit ñi di sàcc nit ñi léeg-léeg sax ñun la war la sang di la tëddee yaa mara bu yi def loolu ni la dugal ci wanag bi nga sangu ñu lay yërlu yooyu dama bu ma doon yàlla damay bënn benn bët bi rek <laughs> ñu naan sangul de jaxasal jaxasal affaire sangul de fekk ñoom seen douche dañuy bënn bunt bi noonu en général si salle de bain bi lay nekk quoi seen chambre yi noonu am ni lañ def rek di la yërlu quoi léegi ngay ngay tànk di sangu rek fekk ñoom ñu ngi caaj ci kaw ci suuf ba ci digg bi alors voilà di ko bëggee di nuyu Korom ak Fay mi ngi wax ci ñooñu di wax ci accident yi Korom ak Fay sa message jot nañ ko sëriñ bu mag boobu di ci nuyu Pierre Fay doom ji Samba Fay toute la famille di boor di ci nuyu ñëpp di bi tëri Korom ak Fay bi Ablaye lakkatu yàpp bu mag bi ñëpp maa ngi leen di nuyu Korom ak Fay nee na tamit surtout surtout suuf si suñu foncier bi amoon na sax tout récemment euh, procès mais da koy gagné par force parce que suufam la suufu maamam la yow di nga am sa suuf nga dem di kayit ñu jël sa kayit boobu jaay ko beneen tubaab italien bi wala anglais bi wala espagnol bi alors que nga ñëw di wut si kayit italien baa ngi tabax sa tur lay tabaxee sa kayit la yore parce que loolu bare na fi waaye waaye seet leen ci yàlla ak yonent bi suba am na da ngay dekki de te boo dekkee ba ñu gis nga boo dekkee boo doon jaay sàcc kotu suuf mbaj bi ñu lay jëkk dóor malaaka mawti dèjà tak yow bu ñu la suulee rek boo ñëwee rek dañ lay laajte yow lan nga doon def àdduna lan moo doon sa taxawaay àdduna laaj la kan mooy sa borom innamal rabbuka kan mooy sa borom allahu rabbi nga ne yàlla mooy suma borom wa eh, dafal ndànk de damay waaraate wa saydina muhammad nabi saydina muhammad mooy suma yonent loolu lañ lay laaj wa alquranu karimu kitaab yi bu ñu la ko laajee da naan alquran bu tedd bi mooy suma téere très bien mu dem bay dem nga ne o oh, malaka bi ni ko wa ibullaahu taala wa ibullaahu li annahu xalaxa nii dinaa sopp yàlla ndax moom moo ma bind wa xalaxa ummi wa abi bind sama yaay ak sama baay wa jami annaas ak mboole mindeef laxa daxala taama lazina kulluhu moo bind ñam mi ñuy lekk wala maa lazina nashrabuhu ak ndox mi ñuy naan wa kullu maa ni illahi itay bi ak lépp lu ñu aajowoo kon gars yi nañ leen gëm yàlla anaatihu laaha dina sopp yàlla wahibuhu te ko at saramen kulli shay'in si lu gën a bëri lépp yàlla rek moo fi ne nañu gëm yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale yi delluwaat leen seen xel jeunesse bu bees bi gëm leen yàlla yàlla moo fi ne mu jub jamono Serigne Touba nee na au delà de 1980 juróom moo lay tax a mucc noppi jekki jaamu yàlla liggéey loo am day loo ko bu ñu dundee ci loolu bu ñuy dee par force àjjana la ñu jëm kilifa yi fi nekk yépp loolu la ñuy sant sëñ taxa Mbacké balay sa yàlla na fi yàgg a téwér loolu la ñuy sant nañ leen ko def moom laay tegal cas bi sax bu euh, sama booy bi euh, géej naa ko gi sax jantal booy naa ko woo temps yi sax euh, mu ñëw voilà Mamadou Sy futur maire de Rufisque mooy xale boobu nga xam ni mooy lavanir de Rufisque expérience bi fit bi jom ji social bi te xale la xale la xale bu ndaw la Mamadou si waaw xale bu ndaw la Momo Sy ñu ngi lay ñaanal vraiment këri kaw këri suuf jokkul cité Sococim cité filao ndënku cité Colobane guy murit Mérina Médiour Guy Mouride Cité Sococim Cité Castor ñëpp ñu ngi lay teg loxo man de teg naa la loxo di la ñaanal parce que gis naa sa jom ak sa amour bi nga am ci jeunesse su Tëngéej bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla na la yàlla gunge ci sa mbébét boobu ngay def may la wér nag may la wér yow dara warul la jot si Malick Aminata sa xol rafet na bëgg nga nit alors ñu dem xooli Pape Birahim cas ko cas Thiès Moussa foo toll ana waa régi Bathily Ngaye tey daal mën na xale yi ni ñuy def seen taat yii méte mbege am nga mbege senkal senkal laay waxtaan méte mbege ni ñuy fër fër fërëjee seen taat yi mel ni mel ni élastique resol xam nga resol oto yi resol man dama tay man daal xaw ma dañ leen dàmp xaw ma dàmp ñu leen e eh, mooma waaw da ngay bare cas gis naa la ci clip bi nga bare cas <laughs> Pape Birahim one love my boy way nga suma copain way nga xale bu am jom moomu si moomu yàlla na ko yàlla gunge ci mbébétam bi mu am ci tëngéej voilà di ko may Boris l'homme de la situation Boris Sow ñu ngi ko koy may Boris doomu wakaam boobu euh, ak restaurant Longor waa Timis Club di ko may box boy et le coin gars yi le coin vers le coin avec le fële ca point ngor ba di ci bëggee parking bi di ci bëggee lavage oto bi di ci bëggee vraiment longe bar boobu di le coin bëx ñaa ñu ngi lay ñaanal Moussa Mouhamed ñaa yàlla jàppale la may la gudd fan ak wér gu yaram di ko may Abou gay chéri caane bu Mbaye Gueye Faye goro Mbaye Gueye Faye Abou gay am nga casan waaw gentleman la moom chéri caane caane doomu Mbaye Gueye Faye la di xale bu adorable am jom bëgg papa ji ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee tamit suñu xarit suñu sëriñ fële ca Medina Baye Ousmane Diassé Ousmane Diassé xam-xam bi sell na Ousmane Diassé xol bi rafet na Ousmane Diassé bëgg na maam Baye Niass Kumba Abdallah yàlla na la fi yàlla bàyyi ba ci kanam dugg paal yërndu sama xarit sama sëriñ Baye joob borom paal moom tamit taalibe Baye Niass la nit yi bare xam-xam ñi ñi ci ëpp xam-xam ci génération bi nga xam ni ñu ngi fii ci Sénégal waa kër Baye la waa kër Baye ñu di ñaanal waa kër Laayeen ñu ngi leen di ñaanal waa kër Serigne Touba ñu ngi leen di ñaanal mais nii nii nii nii ñii ma wax nii ñii laay gën a ñaanal waaw waaw Ousmane Diassé ak Baye Diop di nuyu Thierno Ahmad Sow tamit sama pël boobu maa ngi koy nuyu di nuyu Lebu Ndoy traiteur waaw kooku sama waay la Mbàkke Lebu Ndoy traiteur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax alors Jules Kandé Jules Kandé di doomu Wakaam boobu nekk France fële ca Normandie ca Rouen Jules kande ñu ngi lay bégee bu baax a baax gis sa taxawaay vraiment ci néew di doole yi di doole kaasal néew di doole yi di ci dégg lu ne nag ñu ngi lay saaga ñu ngi lay tëkku ñu ngi lay menacer mais yow jàppal rek mu dëgër fit baa ngi fii doomu wakaam nga te xam nga histoire bi yëpp waaw xam nga histoire bi yëpp vraiment di defendre néew du doole yi boobu ba léegi maa ngi gis ni ngay taxawoo néew du doole yi ba ci néew du doole yi nekk France ñi nekk France nga xam ni dañu am problème mu këyit association bu mag boobu elo euh, écologiste écologiste bi nga nekk di dimbali néew di doole yi ak di taxaw ñi amul papier suñu borom gis na ko yàlla na la ci yàlla fay waaw Jules Kandé doomu ndeyu sama xarit Mamadou Guèye député e eh, Guèye député <laughs> sama copain moom moom ndeysaan moom waa Wakaam la ñu ngi koy bëggee bu baax a baax Babacar Guèye Babacar Guèye député borom Wakaam di bëgg yaayam bëgg yaayam di ko ñaanal toujours Babacar Gueye ñu ngi lay bëggee bu baax a baax association bu mag boobu écologiste boobu nga xam ni vraiment fële Jules Kandé bokk ca France Normandie fële ca Rouen Jules Kandé big à toi Jules Kandé sa taxawaay continuer ko Jules Kandé na la dëgg rek tax a jóg Jules Kandé na la dëgg rey actuellement Sénégal ko ci waxul dëgg di dëggal sa bopp ci dëgg boo deewee jaxal na ma xaalidiina fiiha abadan safara yi dafa garaawa ah, am na na jahannama xaalidiina foofu dañ lay lakk fiiha abadan daayiman tafi yàlla nañ ci yàlla musal yàlla man de dama leen di yërnu rek chaque vendredi bu mu julee ba pare jaar safara yërnu gaa waa sama gaa <laughs> taskatu yaakaar yi naa féq yi yi nga xam ne suñu borom da leen rëbb seen yaay rëbb leen toppatoo ñu seen ndey toppatoo ñu seen baay bàyyi seen ak seen baay di toppatoo ñeneen ñooñu jaxal na ma dañ leen di lakk fu ne la safara bi di jaar seen yaram fu karaw am rek dinañ ko meesee <laughs> alors di nuyu Laye Gueye VIP doomu nday Maxtaar job suba teel e eh, maxu e eh, préparel ma bas cuk bas cuk bas cuk e eh, maxu suba teel maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ñaanal heure ménage ak madame Diop suba teel Matar Diop maa ngi lay ñaanal di ñaanal Ibulaay tamit ibulay takkal jabar Ibulaay yow mi nekk kër Matar Diop suba teel di rakkam takkal jabar voilà jigéentu rek nga fi nekkee takkal jabar voilà sa ndox mi jeexee di nga xam alors di nuyu laay gay VIP doomu ndey maxu moom it vraiment nekk fële ca di liggéey di daan dooleem nekk gentleman di def social doomu ndey moo get moo get tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit xaadim jaxumpa e eh, xa nuyul ma sama doom yi fële ca Radisson di nuyu Diouf moo agent moo vigile moo sécurité grand Diouf maa ngi koy nuyu Radisson di nuyu waa baar bi ah di nuyu personnel Radisson bi yëpp kulim lim juum temps bi mayu ma ko waaw di nuyu DG Souleymane Ndiaye fàttewuma ko DG Souleymane Ndiaye ah moom mi nga xamante ni euh, mooy DG des aéroports infrastructure ñu ngi koy ñaanal une très très très bonne vie santé yàlla sàmm la gunge la ci sa liggéey yow ak le DG Biram Faye ASP ñu ngi lay nuyu di la ñaanal tamit DG Biram fay doomu Fatick boobu big up à toi ak madame Giro fële ca Mista madame Giro defal sa liggéey ni nga ko bëggee ni nga ko mënee tey apprécié nañ la joolaa nga kenn mënul la dara madame Giro félicitations à toi sa liggéey rafet na loolu DG Biram Faye dina ci jot sama xarit la di nuy PDG Samba Kanté bonsoir Dakar ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di nuy tamit vraiment euh, Alioune Alioune Ba Alioune Badara Ly Alioune Badara Ly futur maire de Koungheul Alioune Badara Ly nekk na xale boo xam ni vraiment mi ngi soutenir di jàppale président de la République di jàppale tamit euh, ñi nga xamante ni ñooñu ñooñu ñooñu ñoo jara jàppale ci côté sociale ci côté communication vraiment di xale bu réglé tey toog di def li muy def rek gëm naa ni di nga yegg fi nga bëgg a yegg doomu ndey Lamine Tamba lamin Tamba tamit maa ngi lay nuyu bu baax a baax de passage di bëggee Aline Badara vraiment Aline Badara li futur maire de Koungheul waa Koungheul daal nee nañ ma jéego loo mën a jàppale suñu doom ji doyul loo mën a yooxu ci télé bi ci suñu doom ji doyul mi ngi def sortie tout récemment weekend bi il était avec le ministre vraiment ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp apprécié ko moom rek laa gis mooy génn ci goxam Koungheul ñëpp apprécier ko gunge ko muy mag di ndaw vraiment Aline Badara ñu ngi lay ñaanal Aline Badara lii ñu ngi lay ñaanal ci côté urbain bi nga nekk sa liggéey gën a barkeel ñu ngi lay ñaanal une très très très très bon bonne continuation big up à vous alors tegal ma bas cuk waaye ma may ko Matar Diop suba ak euh, VIP euh, Ablaye Gueye VIP fële ca Italie en attendant pare ngeen bas cuk reménage à Matar Diop suba teel <laughs> Eliane dugalal musa dugalal yéex nga de doo dugal voilà ok alors moo leen ñun milliardaire saoudien yi les vendredis dañu yor suñu kaan yor suñu pip xam nga ñun taxal même ma tuuti rek ma woon gars pip bi nga xam ni moom la saoudien yi di yor les vendredis gis nga écriture en or du ma ko nag mais ci lay tega sa bam la nga isa bangal baay <laughs> clip maman maman si big up à toi mon frère et eh, xacha nee la fii tey du parc des princes kii parc de Estade Ngalandou Diouf la tey tëngaj la Ibou Guèye parc Estade Ngalandou Diouf dewo lebu gi <laughs> dor foof wax rek ñoom ratata fii rek jàmm la woon looy wax mu sa xol neex ci lii mën naa def jàmm la woon looy wax ey noppi bul wax nii la war a nga ni teg jigéen la sa gin teg na ma neex jigéen teg man tey yow doo ci Muhammad gis nga xale bi bu doon géwal non ngéwal gi tas te ba suub du géwal de lébu la de famille Basiru Jaañ Maram Jóob la bokk ndakaaru bu bu bu bu dëggu bi la bokk sama mbokk la lébu la comme man ñoo bokk Basiru Jaañ Maram di nuyu Aji Maram di nuyu lay Mokhtar Diop di nuyu toute la famille ah ma cousine Nabou ah euh, Ndey Maram di nuyu toute la famille Jaañ yi nga xamante ni ñu ngi Dakar ak euh, Rufisque Tëngéej la famille Ndeye Soxna a euh, Ndeye Soxna Kan ñoom Aji Mariam ba du Meng Assou Cissé Ndeye Binta di bëggee famille bi yëpp Ndeye Roxoye Kan ngi koy ñaanal sama yaay jooju ak tan Ndeye sama yaayu bopp Ndeye Sala ñoom ñëpp c'est la famille Abi waaw di nuyu wa maire yi nga xam ne ñu ngi Tëngéej ñoom tan Seynabou Kan di ñaanal ñoom tan Lalla Diop sama yaay Adja Kan maire Ngoya Kan ah, ñoom xaan mbay ma jaaga famille bi yëpp maa ngi leen di ñaanal ñooñu ñoo doon aas bu jëkk ba ay ami la jaxate taan Yacine jóob taan Hélène Diop bu Mbaye Ndiaye Ndioro saan maire yooyu ñoo bëggoon àdduna xamoon seen bopp maire yooyu ñoo rafetoon te teey te set tey xeeñ neex fu ñu la romb bàyyi fa seen xet léegi loolu amatu fi maire yi fi nekk maire yu baax yëpp dem nañu xale yi war a nekk maire ñoo war a gàngat lu baax di roy lu baax mais xale yi génération bi dañuy tux dañuy teg ay kaba dañuy fóon dañuy naan sàngara ah da nekk mag nekk ay maire de famille yu noo ñu leen paax bëgg yàlla yonent bi di dig li yàlla di digle ñu koy def di ko appliquer boo mënul def lépp sax dee ci def rek del cof rek ba ba ngay def lépp parce que dee gi dafa gaaw ok alors di nuyu Abou Mbaye le DG de Marché Poisson marché poisson tamit jot naa seen message Etienne eh, Bamba futur maire de moom it mi ngi taxaw di bëgg jeunesse bi di di créer ay employés di leen dugal ci marché bi maa dem marché central mi ngi set bii façon set merci à Abou Mbaye la DG de marché central yàlla na la yàlla teral et eh, tagal ma Cheikh Ndigal Lo set mooy son boobu set set mooy set set boobu mu way set yor bureau bi recherchel ma ko nga tegal ma ko ma may ko Abou Abou Mbaye set na DG marché central futur maire yàlla nga nekk maire yow boo nekkee maire commune bi du ñu jooy Abou Mbaye dëggu na abu Mbaye respecte na salaire employé am Abou Mbaye respecté na côté social événement boo amee tabaski tamxarit korité lépp ba ci feetu chrétien yi da ciy dugal loxoom ku am programme avant fin du mois boo ñëwee ñu anticiper la sa salaire Abou Mbaye li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyi jig na la genre yooyu la Sénégal soxna ay genre Abou mbay ay genre Momo Mamadou si futur maire de ma Mamadou si ah genre yooyu ah ak monsieur fay futur maire de ah futur maire de Sangalkam ah ñooñu ñooñu la société bi soxla ay DG Biram fay ay DG Souleymane Ndiaye ñooñu ñoo dëggu di jàppale président Macky Sall di liggéey mais le rest yëpp dañuy tricher rek seen bopp rek lañ fi nekkal seen bopp rek lañ fi nekkal alors ñu dem xooli euh, man defe naa damay tàggatoo ah damay tàggatoo di ci nuyu Fat Fall nee na ma milliardaire yaa ngi may rey yaa ngi may rey maa ngi war a monté ji léegi liggéey gontu <laughs> faraan yi mais mi ngi war a liggéey xam moom dafa gérer ay restaurant nag ku am jom fatfal Fall Balago maa dem France billahi mu teral ma toppatoo ma fayu ma lekk fayu ma naan fayu ma parfum fayu ma yére Fat Fall Balago doomu ndeyu Bougane Gueye Dany foog nga am jom foog nga am fula parce que Bougane Gueye Dany ni yow la gëm bopp Fat Balago dafa gëm boppam c'est ma maman chérie adorée one love yow laay tëjee tëjaleel ma Thione Seck non set tegal ma set Fat Fall Balago bàyyi xaritu Thione Seck Thione Seck mooy bàyyi mais n'empêche tegal ma Cheikh Ndigal Lo rek Balago nante la dina xam ni mu demee parce que oblige parce vraiment dëkk bi dafa war a set ñu jàppale président Macky Sall mu set ah ma waxati ka après commentaire yi ah ñu jàppale président Macky Sall mu am troisième mandat quoi <laughs> wuy sama ndey wuyaa yooyu taj temps tegal ma Cheikh Ndigal Lo ma tàggatoo di jox gars yi rendez-vous sama invité bi embouteillage bi la xam naa mais euh, semaine prochaine dinañ indi Alpha Diallo vraiment ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dinaa jël 3 ou 4 invités ku nekk def 10 minutes 15 minutes 10 minutes 15 minutes alors may bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal toujours kilifa diine yi di ñaanal sama famille di ñaanal buur bi azza wa jalla di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal personnel bi ñu fi nekk ñëpp yàlla sutural leen sargal leen teral leen defal leen jàmm di ñaanal euh, madame Ndiaye une très très très très bonne continuation si sa liggéey di ci am ndam bu baax a baax di ñaanal képp kuy def émission 2STV yàlla may la ndam may la wér na nañu yàlla may wér yàlla nañu yàlla xiir ci boppam et Amadou Bari sama taximaan bi kaa jël si ma waay nuyul ma Alpha di ñaanal Koromak fay di ko wax a ñaajaa andi ki rek Koromak dëgg rek ngay wax yàlla nga fi yàgg te wér Koromak Faye fay biram penda waagaan yow de ku laal ci suuf dina ko gis si nii wala mu gis ko si nale man xam naa ko xam naa ci dara parce que gis naa sa liggéey koramak fay biram penda waagaan one love tegal ma Cheikh Ndigal Lo yow tàggoo naa de gars yi ciao bye bye alors alors alors sama kii bi sax yow xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral ay waay ay waay ay waay ay waay ay yow bi baa ngi de waaw ah, waaw am seex daal allez les gars one love ciao jëlal ma may la son bi waaw DG marché central yaa ko moom Abou Mbaye jëlal son bi tegal ma Cheikh Ndigol Lo waay xam nag dañ ko nar a wàcce di ko tegaat <laughs> parce que fi mu programmé moo moo graaw Cheikh Ndigol jamma waaye jam rek ñu tëj benn la rek billaay kii ma jox lii sama yaay ji ma jox kado bii yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gi yaram jox nga ma lu mu bëgg eh Jules Kandé one love waaw ñu ngi lay bëggee bu baax a baax doomu wakaam boobu Jules Kandé merci fële ca France waaw Rouen Normandie ñu ngi lay ñaanal tamit yow ku am jom nga yàlla na sa jàmm yàgg di ñaanal tamit pa sama sama sama sama sëriñ sama xarit waaw moom xam na ma xam nee na ma dimbali ma bul tudd sama tur ci télé bi <laughs> mu ne ko waa dinaa ko du ma ko tudd Aline Badara waaye Aline Badara li doomu Koungheul boobu la Lamine Tamba nee la Aline Badara li gis naa liggéeyam bi muy def ci ndakaaru sax ci bi mu nekk urbanisme bi mu nekk ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaanal vraiment suñu xarit suñu doomu ndey waaw Wally Balago Seck yàlla gën ko sàmm ak tous les musiciens Pape Diouf Bakchut Bastouk Thiat maa ngi koy ñaanal vraiment ah sama xarit la fàttewuma ko Sidi Diop jantal booy maa ngi lay ñaanal di ñaanal El Hadj Keita génération baa ngi noonu Mandiaye ah Pamma ah vraiment moo Dieng boo yaa ngi noonu daal boo yaa ngi noonu te dinaa ñëwaat ci yéen one love Yeah. Ciao.